أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci buntëb ñaar fukkeel ak ñeent bunt bi di jàngale ba tey shay'un min anwa'i sihr lenn li ci njabar tey sunu dars bi ñuy jël mooy xadiisu ibnu abbas aw ibnu mas'ud ibnu mas'ud nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ala hal unabbi'ukum mal addatu hiya namima alqaalatu bayna annas tey xadis boobu la ñuy jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngale bu muy jàngal diine ji ak di ko leeralal jullit yi léeg-léeg mu jëfandikoo ay baat pour ñi muy waxal bàyyi xel li muy wax moo tax ci hadis bi ci hadis ibnu Mas'ud yenent bi ne alaa mu nekk aadaatul istiftaax alaa ci arab jumtukaay la bu ñuy jëfandikoo pour ubbi wax olof yi naan ko dama ne nee naa ki bëgg a wax jël micro ne dama ne dafa bëgg a wax ak nit ñi yonent bi tamit da ko daan jëfandikoo pour wal xaradu tanbihul muxaatab tanbihun lil muxaatab nee na lim ciy jublu nag mooy bàyyiloo xel attention ki muy waxal wal ictinaau bi ma yulqa ilayhi li ahamiyatihi ak fexe ba ki ngay waxal mu def yitte bàyyi xel ci li ngay wax ak moom ndax li ngay wax dafa am solo kon baat boobu li tax arab yi di ko jëfandikoo ñaari mbir a tax baat boobu tudd alaa bu njëkk bi pour ubbee ko wax ji ñaareel bi pour bàyyiloo xel ki ngay waxal pour mu yittewoo li nga koy waxal mu xam ne du lu tuuti nga ko bëgg a wax loolu mooy alaa ci xadis bi li ci tegu mooy hal unabbiukum mal adda mu ne al istifham li tashwiq hal bi al istifham la li tashwiq maanaam question la boo xam ne ki ñuy laaj dañ ko dañu jublu ci moom mu bëgg liñ koy laaj mi ngi mel ne aaya bi yàlla di wax ne hal adullukum ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim e yéen jullit ñi yéen ñi gëm yàlla moo du ngeen ñëw ma wax leen commerce boo xam ne da leen di musal ci mbugalum safara hal bi ak hal bi ci xadis bi benn la mu ne li ann al insaan mustaaqun ila al ulum ndax doomu aadama li tax suñuy wax ak moom mu war a déglu mooy kuy aajowoo xam-xam la rawatina ab jullit te li war ci moom yajibu an yaalama jullit dafa war a xam tey rek ci àddina bi nuy tund ngay gis jullit bu réer tey ci sunu monde sunu àdduna rek ngay gis jullit bu xamul dara dara xamu ko ci diine dara waaw boo waxee rek mu ne la mokkal naa faatiha falax ak naasi tey rek la am mais démb diine jullit ñëpp dañ doon jàng parce que islam ku jàngul doo ci jëriñu moo tax mu ne wa qad yakunu al mar'u muraad wa qad yakunu al muraadu bihi at tanbih nee na léeg-léeg aussi danañ ci jublu yeete mooy hal léeg-léeg yu jublu ci pour yeete li anna al muwajjah ilayhi al xitaab yambagi an yantabiha li yaalama ndax ki nga xam ne moom la ñuy waxal ki nga xam ne moom la yonent bi di waxal adressé ko wax ji li war ci moom mooy mu teewlu te xam kii wax ak moom ak li mu koy wax ak moom lan la ndax li ñuy wax ak moom wa hiya tuslihul mujtamaa luy defar société la loolu moo tax yonent bi ci ay termes yi muy utiliser hadis yi muy wax yi ëpp yi jëm ci société bi dafay utiliser xal mu ne wa maana maana bi mooy unabbiukum hadis bi lan la bi ñuy jàng mooy ala hal unabbiukum jël nga ñaari bii la waaw waaw waaw al adhu waaw al adhu la al adhu mu ne moom lañ naan al adda al adhu mu ne al istifham bi li tashwiq mu ne wa maana unabbiukum uxbirukum ñëw leen ma xabaar leen kaay leen ma xamal leen wa hiya muraadifa lil xabari ñëw leen ma xabar leen ma xamal leen axbirukum mu ne wa fi l istilaahi almuhaddisiin mooy alxabar qaala baadu alulama min naahiyati alluga al istilaah mu ne lenn ci boroom xam-xam yi dañu ne ci wàllu làkk arab wala ñu dem ci al istilaax mooy innal amba luga yakunu fi l umur alhamma ñaari mbir mooy xabar ak naba ñaar yëpp suñ koy firi ci olof ñun dañ naan xabar la naba comme ni ñuy jàngee ci suratu naba i ñun buñ koy firi dañ naan xabaar la waaye boroom xam-xam yi firi xadis dañu ne ñaar yooyu duñu benn lu tax ñu ne wal axbaar a am minhu ñu ne xabaar baat boobu tudd xabaar moo gën a mat ak naba ñu ne day nekk fil himma wa gayrul himma day nekk ci loo xam ne léeg-léeg nit ñi yittewoo ko léeg-léeg mu nekk ci mbir moo xam ne kenn du ko yittewoo kon xabar ak naba loolu mooy différence bi moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam utiliser fii hal unabbiukum ndax duma leen solo duma leen xamal xabaar leen lu ca tegu mooy al adhu mu ne ala waznil hablu wasamtu wal waadu baat bii di al adhu suñ koy peese dañ koy jox dañ koy wàcce wàcce waayu baat bay ci arab al hablu bi tekki buum dañ koy bindee ci maska yi ak samt noppi ak waadu dige waaye baat bi maanaa bi li muy tekki mooy alqatu mooy dagg wala at tafriq wala tàqale kon hadis bi nekk sunu kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy jàngale tey mooy luy dog ak di tàqale nit dina laaj benn laaj mu ne waaw lu tax yonent bi di jàngale njabar daal di jël hadis bi di ko dugal ci buntu njabar tontu bi mooy njabarkat day dagg mbokk di tàqale ay nit moo tax yonent bi dugal ko ci bunt bi bépp njabarkat bu ngeen gis ci àddina tàqale na ay nit ah dog na mbokk dog mbokk weesuwul ñu indi la kenn ku feebar ngeen ko sa yaay moo la jàpp du ngeen ko dégg kii de yaayam a ko bëgg lekk man dégg naa ci rajo bi xaw ma ci émission boobu tudd tes benn xale bu jigéen bu ñëw ci rajo bi ne sama yaay moo may lekk xool loolu mu grave nit ne yaayam moo koy lekk yow yow sa yaay jur la lekku la ba nga nekkee liir lekku la ba nga lekku la ba nga am ñeent fukki at mu ne dalay lekk xanaa kay yàpp bu ñu koy lekk ba mu nooyee la ñu wax waaye ba mu demee ba ne këcc këccaaral xam nga loolu wax wax waxu ku réer la ak ku am xamul diine te lan moo waral loolu mooy njabarkat yi ñooy def loolu kii yaayam a ko jàpp kii baayam a ko jàpp kii ay mbokkam a ko jàpp nga defa ne kër guñ la ne diw moo la jàpp kër googu jàmm dina fa amati ndaw si jëkkër jëkkëram a ko jàpp wala jabar jabar ji jëkkër jee ko jàpp wala jabar jee jàpp jëkkër ji xam nga ne loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam dugal xadis bi ci bunt bi waaye al adhu wa ayan kaana bu mu ci mën a firi ci ñaar yi tàqale wala dagg ëmb na ko moom baat bi dafa ëmb ñaar yépp moo tax yonent bi ne hiya namima moom mooy rambaaj ndax rambaaj lan mooy liggéeyam annamima rambaaj luy digganteem mooy jaxase moo tax yonent bi ne baat bi hiya namima mooy rambaaj mooy yàq diggante dagg mbokk ah yàq société amul lenn lu gën a garaaw ci kaw suuf rambaaj moo tax yonent bi ne laa yadxulul janna nammaam rambaaj du dugg aljanna mukk ci àdduna lu tax ndax dafa day dog mbokk day yàq diggante ci suñu société yi dund bi ñuy dund dañu xool bu baax li ci ràmbaaj yàq ci kaw suuf lan la ñaata la yenn saa yi nga gis kër gu tas lan moo ko tas yenn saa yi nga gis société bu tas yenn saa yi sax nga gis jàkka joo xam ne kenn dootu fa julleeti kenn dootu fa demati lu tax ndax benn waay moo fa nekk jaxase ñëpp yenn saa nga gis koñ boo xam ne koñ bi kenn du tudd sa morom wala société boo xam ne kenn du tudd sa morom wala ku nekk ngi guuxal sa morom loo xam ne di xaar rek mu juum ba def benn erreur laal la wala mu te li ko waral mooy benn nit moo tax mbokk yi rambaaj baaxul moo tax yonent bi dugal ko jox ko màndarga njabarkat njabarkat yépp ay rambaaj lan ndax tàqale njabarkat bala muy am xaalis dëgg dëgg dëgg dëgg tàqale ñaar ñu doon ànd wala mu yàq diggante mbokk gi ndax bu ñëwee nga ne ko dara dalu la dangaa feebar rek li ma jàpp daal mooy yàlla la natt du la fay waaye boo ko nee yow seen waa koñ ñoo la jàpp maire diw moo la jàpp wala pa diw man nag boo ma joxee xaalis mun naa laa faj nu muy def da lay jox rawatina tey jii nag nga xam ne suñu société bi ni ñu leen defalee ay promotion ci rajo yeeg télé yi démb laay déglu ci benn rajo erreur bi ma def mooy dama fàtte jël turu rajo bi démb déglu naa ko ba minuit ci guddi waa ji di wax dil yi njabarkat yi di teg ak fajkatu rab yi léeg-léeg nga ñëw ci benn gisaanekat mu ne la yow dañ laa liggéey te liggéey bi ñu ngi ko def ci ci nag ci biiru nag la nekk soo ma joxee xaalis dinaa jënd nag rey ko te bu ma koy rey da ngay taxaw bu ñu ko fees da ngay taxaw dinañ génne téere bi ci biir nag bi nga xam ne dañ laa liggéey yow suñu la waxee loolu yow looy def dama ngay indi trois cent mille nga wër yi ak say mbokk lijjanti ba indi trois cent mille waa ji ngeen ànd daral mu ne nañ jël nag bii ñu dugal nag bi oto sa kanam ñu indi ko teg ko ci digg ëtt bi rey ko ne gaa yi fees leen ko gaa yi fees ko ne daggati leen ko ñu dagg ko mu ne dagg leen mbaax bi ñu dagg mu ne xool leen ci biir mbaax bi di ngeen fa fekk téere bu mel nangam ñu génne téere bi ci biir mbaax bi mu ne la waxoon naa la dañ laa liggéey mi ngi nii waa kay lo ci loolu laa bëgg a wax njabarkat bi daf ko def télé def démonstration nit ñi filmer ko ñu génne ko waa ji di wax loolu nu mu yombee c'est parce que ñi ko ciy def dañuy sol gant xam nga boo demee ci réewu tubaab yi loolu moo xew léegi fii maanaam bu ñuy jaxasee ndoxu nag bu góor ak nag bu jigéen pour mu ëmb seen loxo seen loxo la ñuy yóbbee mani yu bi def ko ci parce que xeeñ na fa ubbi ginnaaw gi daal di koy dugal ba ci biir daal ko fay bàyyi génne gis nga noonu ñu def mani yu bi noonu la ñuy def téere bi waa ji day bind téere bi defar ba mu baax ngëpp ko ñu solal ko gant mu def laalo ci loxoom laalo ba mu di tax dugal ko bu ci biir daal di ko fay bàyyi daan ne waa ji nag bi bu kenn jaay maa ko jënd ba pare ñu def ci xàmmekaay bis bu marché bi normalé mu ànd ak yow léegi nag moo tax waa ji def démonstration boobu ñu indi ko daal di koy reen di génne ko pour mu pour mu wan nit ñi ne man lu ma wax dëgg la mais loolu dañ ko sa préparé dañ koo def waa ji dem loolu la doon leeral ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne waaw ñoo ko ci def pour lan pour tout dëkk bi lëndëm léegi nag li ma bëgg wax rek mooy ku mel noonu tey bu defee loolu yow fekk amoo capacité xam ba mu génne téere bi ne la mu ngi nii kooku ñaa kooku lu mu la wax ci sa àdduna bu la waxee jaay sa kër sax nga jaay ko parce que yow fi mu nekk say mooy kii moom nekk na ab yonent ci yow fekk du dëgg téere ba dañ ko faa dugal wala buum nga dañ ko faa dugal wala gàllaaj ga dañ ko faa dugal dañ ko jël dugal ko bu ci biir génne génne seen loxo bàyyi ko foofu bi jënd jotee nag ñu dem jëndi ko lu tax def ko ci xar lu tax def ko ci xar def ko ci ginaar mu def ko ci nag kese parce que loxoom ci ginnaaw nag bi la xaj léegi nag ñi nga xam ne ñoom dañ koy génne ci télé bi filmer ko ñooñu nga xam ne ñoo leen éviter dafa am lu ñu ci am mbir bi ñëpp ci am journaliste bi dañ ko ci jox paas ak caméraman yi nangam nangam ku nekk am ci waa ji am ci su ko defee ñu bind numéro téléphone am gars yi commencé waaw kii fu mu nekk fu mu dëkk man nangam amee metti kërti kërti waaw bu ko defee ñu commencé laa seeti xam nga sénégalais moom li ñuy wax dundam yëpp njabar la sénégalais moom yàlla rek moo koy dimbali waaye dundam lépp njabar la moo tax njabarkat yi bëri Sénégal moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal leen di dugal ci buntu rambaaj ak yàqkat mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam hiya namima moom mooy rambaaj fi'liya bi maana wa hiya man namma mooy koo xam ne day dox rek di yàq alqaala wax joo xam ne waa ji daf koy wax digganteem ak ñeneen jaxase wa namima fastaraha bi qawlihi mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo firi xadis bi baat bële ñu doon wax sànq te mooy al adhu yonente bi firee ko an namima te mooy rambaaj suñu bëggee xam baat boobu mooy lan mooy naqlul qawli bayna annaas mooy toxal ay wax diggante ay nit te jaxase leen toxal ay wax fenn dong lañ ko daganale mooy ñaar ñu yàqu nga bëgg leen defar wala fan ah ci ci sa jabar jëkkër ak jabar ak ñaar ñu xuloo nga bëgg leen defar mën ngaa toxal ay wax yóbbu wala nga fen seen diggante fudul foofu rek dafa araam waaw alxarbu xida ak ci xeex ndax nga wor ki ngay xeexal waaye yéen ban arme ngeen yor nga ni ko ñun soo ki ngay xeexal nga yor paaka boo ko nee paaka laa yor lu muy wuti daa si lay wuti kon kay bu la nee loo yor ne ko man yor ma dara fekk yow am nga loo yore sa noon bu xamee arme bi nga yor day wuti bu ko double kon ci ñetti place yooyu dong la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daganale feneen yëpp ku ko def dugg nga ci musiba ñaar ñu xuloo nga ñëw di leen jubale man de li ma dégg mu wax ci yow lu baax la fekk leer na ne déggoo ci moom mu wax lu baax pourtant moom ku la bëgg la pourtant bi nga demee da nga ne waa jooju ku ko yàlla bu mu jaarati fu ma jaar moom tamit nga dem ne waa yow yow li nga wax fii yëpp ak waa ji li mu wax ci yow lu baax kese la wax fekk ku nekk ci ñoom dafa sotti moroomam essence taal ko waaye yaa ngi wax loolu pour pour na soppi ndox mu sedd pour ñoom ñaar ñu mën a juboo ak sa soxna waaye barki dem boo xamoon di nga ma may 1000 francs nga ne ko amul benn problème maa ngi xëy bu ma xëyee indi ko te bi ngay dem xam nga ne 1000 francs nekku sa poos mais da nga am yaakaar rek waaw yu demee noonu loolu la mais leneen islam daf ko araamal moo tax mu ne naqlul qawli mooy toxal wax bayna naas diggante nit ñi fa yunqalu min haza ila haza mu jëlee ci kii toxal yi ci kële ndeysaan benn benn borom xam-xam bu mag benn sëriñ dafa toog benn waaye ñëw di tagg benn nit ci wetam diw moo baax diw kenn gënu ko ci dëkk bi diw diw diw diw diw wax wax wax wax lu tolloog une heure de temps muy tàgg waa ji mu jékki-jékki waat rek biñ julli jee ba ñëw mu ne diw kenn gënu koo bon moo gën a yées ci dëkk bi fekk ñaan na waa ji rek waa ji bañ koo may xam nga noonu la ñaankat yi di def buñ la ñaanee boo leen mayee ku baax nga boo leen mayul ku bon moom tagg na ko ba pare ñaan ko waa ji bañ koo may ba pare mu toogaat fi mu ko doon taggee di ko xas sëriñ bi daan ne waaru daan ne zammun wa madhun min wahid ila wahid la garib mu naa tagge ak xaste jóge ci kenn jëm ci kenn maanaam ñaar ñëpp ci kii la bàyyeekoo jëm ci kii tagg na ko xas ko benn nit jëm ci benn nit loolu dafa yéeme Sénégal nag noonu la ñuy def ku defar seen affaire ku baax nga ku ko defarul ku bon nga waaw moo tax même ci politique ku dégg mu naan diw moo fi baax nañ ko fi bàyyi seet leen lu mu fa am bu fa amee dara day nangu waa ji toog parce que intérêt am lay sàmm loolu muy am bu fa amul dara kii kay nañ ko fi jëlee kii kay baaxul xëy na ci yow la baaxul kay waaye baax na ci yeneen ñun su ñun suñu problème yëpp mooy suñu intérêt rek la ni xool waaw suñu intérêt su baaxee kon mbir mi baax na su fekkee ne su baaxul kon mbir mi baaxul te loolu nag du baax loolu du nattukaay yu ñuy seetee mbaax mbokk yi mu ne fa yaati fulaan diw day ñëw ci nit wa yaqulu funaan ya subbuk yow day man dégg naa nit di la saaga dégg naa diw saaga la nee na fa huwa namma ilayhi moom day jaxase na ñaar ñii ndax toxal na même bu déggoon sax diw saaga nit warul dem ne dégg naa diw saaga na la moom yoonam nekku ci warul dem di jottali ji wax ji saa yoo déggee ñu wax nit lu bon yow waroo dem di nettali la nga dégg te ñu wax ko mu jëm ca waaja moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon wax saxaaba yi bu ma kenn nettali lu mu gis nit di ko def surtout nag lu jaarul yoon safaan bu ma ko kenn nettali gaa yi ne ko waaw yonent lu tax duñ la ko nettali mu ne ku ngeen ma nettali li mu doon def su ma ko gisee sama xel ci loolu lañ njëkk a nekk te man damaa bëgg bu may génn àdduna naa génn ci àdduna ci seen biir sama dënn baa ngi set bu ma génn àdduna di yóbbaaleel kenn dara ma fekk naa yóbbu xol bu leer ci yéen xol bu set wicc bëgguma ñu wax ma dara ci kenn may dem àllaaxira di ko yóbbaale moo tax nettali baaxul te bu xaaba yeeg seetkat yépp ay nettalikat lañ gisaanekat lañ ñoom ñëpp moo tax yonent bi ne ay rambaaj lañ ay taskatu dëkk lañ taskatu mbokk lañ dañuy dagg mbokk mu ne benn moo ko saaga la wala ay fen la fa in kaana kaziban fa huwa buhtun wa namima su fekkente ne yow ay fen nga def ay fen nga dajale sos te gaa yi bokk na ci ni ñuy tasee te yooyu rek moo fi nekk ci dëkk bi boo demee ci waa ji mu lay seetal wala mu bugg laa wax ku fee ki la ki la na def nangam wala nangam te mu ne la yow day dëkk nga ak jigéen joo xam ne xeesul ñuulul gàttul njoolul sunu kër yi lan moo fa nekk ay nit ñoo xam ne noonu rek lañ mel waaw nga ni ko ah waaw mu ne la waaw moom daal ñuulul noonu yëpp waaye xeesul noonu yëpp daal la ñuulul noonu yëpp xam nga mun laa wax ku ñuul ku ku ku ku ku loolu amu fi ku xees pec pec pec pec loolu amu fi nee na ñuulul xeesul ah gàttul noonu yëpp waaye njoolul noonu yëpp léegi nag yàlla nag bu ñu la wax lool rek nga ñëw nga ni tëll ci oto bi rek ki ngay njëkk a dajal ci buntu kër gi moom kii la c'est sûr que kii la mu ngi nii ndeysaan nga indi problème benn nga romb ko doo ko nuyu bu la tegaloon añ doo ko lekk problème commencé fekk xamoo ne seytaane moom moom moom ci seytaane nga demoon seytaane yàq na sa digganteeg say mbokk looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam dugal leen ci waame boobu mooy lan njabarkat ak rambaaj ñoo yem ndax ramba njabarkat yëpp ay rambaaj lañ dañuy yàq képp ku yàq diggante rek yow musiba naaru laay dal na la parce que ci rambaaj yi nga bokk ci njabarkat yi nga bokk mu ne wan namima kama axbara rasul sallallahu alayhi wasallam rambaaj comme ni ko yonent bi waxee taqta'u sila day dagg diggante wa tufarriqu bayna naas day tàqale diggante yi nit fa tajidu haazayni rajulayni sadiqayni nga fekk ñaari nit xarit yu daan ànd guddeeg bëccëg ñu fexe ba xarit bi feebar rek wala ñàkk liggéeyam wala dara rek dem rek ñu ne ko yow ki ngay àndal la allahu akbar ki ngay àndal la nga ni ah déedéet ñu ne la mo ko koo la jógal de waaw jaral na la kooku nga def ko lu nekk di nga ci gis koo xam ne dina dem ba allahu akbar yàlla na yàlla yërëm da nga ci gis yu doy waar yu xew te loolu lu ko waral mooy dangaa bàyyi sa diine rek dangaa dem ci ñooñu yonent bi wax ñu daal lay alak waaw am na benn jigéen boo xam ne doon li da doon liggéey ji borom këram bu mu takk kenn na ko takk moom rek doon xërëma ji jëkkëram pour bu mu am wujj bi mu demee ci xërëmkat bi mu ne ko sama jëkkër dama bëgg bu mu buuseeti xam nga moom bi mu koy wax bu mu buuse lu mu ci jublu woon maanaam mu toog ci kër gi rek waaw bu mu takk keneen bu mu doxi di seeti xale jigéen yi waa ji ne ko dina toog de waa ji daal di xërëm waa ji waa ji bu xëyee suba wala mu liggéey day sangu ba set sol ay yéreem daal di tëdd ci canapé bi génne journalam di liir non ñu ne ko waa doo liggéey du wax ak kenn moom daal day tëdd ci canapé bi liir ba sonn jow dugg biir néegam tëdd une semaine génnul kër gi tëdd rek saal bi néeg bi su ko ndaw si ne yow doo liggéey mu ne mu ne ko noonu daal di yëngal ba bi noonu liir yëngal daal tëdd ah ndaw si tiit ba mu am 15 jours waa ji liggéeyiwul waa li kër gi liggéey bi téléphone ñu mu ne ñu ne ko mu ngi nii de waaye moom day léegi sax du wax ak nit ñi day liir rek tëdd ndaw si daa delluwaat ci bu xaaba bi ne ko yow man dama dama la ne woon rek bu mu seeti xale jigéen yi mais yow li nga def dafa ëpp parce que léegi waa ji toog na ci kër gi nangul sax liggéey yi mu ne ko ah foo ko foo suuloon liggéey bi ana foo ko suuloon pour ma dindi ko mu ne ko ci jardin bi laa ko def mu ne ko léegi nañ ko sulli sëriñ bi ñëw xam nga lu garaaw mooy fi mu ko suuloon dañoo gas ba sonn gisatuñ butéel bi xam nga lu ñu def ñu ne jardinier bi ki yor ki yor tool bi rose fleur yi ñu ne ko nañu gas jardin bi yëpp pour ñu gis ñu gas lépp gisuñu butéel bi fleur yëpp ñu dajji ko gisuñu butéel bi waa ji noonu la toogee noonu ba dee liggéeyiwul noonu la toogee bu xëyee sangu soo yëreem ñu indi ko journal mu liir toog ci saal bi bu naaj bi tàngee mu dem nugg néegam tëdd nelaw bu yeewee bu ñu ko yee añ mu añ delluwaat tëdd nelaw comme ça ba mu waa ji génn àdduna waa ji génnetul kër gi yooyu ñoo ci gën a ndaw yoo xam ne mu ngi xew tey ci sunu société jigéen ñi di liggéey seen borom kër yi borom kër yi di liggéey xale jigéen yi ñi di liggéey seeni patron yi dëkk bi liggéeyante xërëm xërëm gi ni ko nit ñi gëmee da ngay dégg sax ñu ciy wax ay baat waaw boo xawma boo boo boo gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf loolu ngay dégg ñuy wax boo gëmul xarfa fuufa ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf wala soo bëreewul ñu bëre daanu sa kaw waaw loolu lañ lay gëmloo fii dëkk bi ñëppay takk ñëppay naan ñëppay sangu waaw boo xërëmul ñu xërëm la loolu lañ lay wax pour nga dem defi ko waaw yàlla aaya yim naan wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la loolu doyul allahu yaasimuka min annas ana aaya yooyu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la loolu jànguñu ko lu tax mënuñoo jàpp ci yàlla mbokk yi mu ne nga gis ñaari xarit fa yati haza nammaam rambaaj boobu njabarkat boobu daal di ñëw fa yaqulu li ahadihima mu wax kenn ci ñoom nangam ak nangam ak nangam diw nangam diw nangam kooku tamit am xel mu gàtt càmbarul loolu yàlla di wax wa in jaakum wa in jaakum fasiqin fasiqin bi naba'in fatabayyanu yàlla nee na ab kàccoor su leen indileetee xabaar wala mu indi leen benn information balaa ngeen koy gëm di ko tasaare ah na ngeen ko leerlu na ngeen ko vérifier na leen jaral ngeen dem ba ci source ya ngeen vérifier ko ba mu leer ci yéen ngeen doog a li ngeen ngeen doog a jël position léeg-léeg ci ñun ñu jot ay xabaar rek commencé di ko di ko tasaare wala ñu gëm ko fekk xabaar yi amul loolu te loolu dafa bëri dafa bëri ab jullit dafa war a teey gis nga benn waay noonu la fasee jabaram te jabar ji deful dara benn kàccoor bu bon moo noboon ndaw si dem biir dem biti ndaw si lànk toog ci sëyam waa ji ne dina tas sëy bi bu sëy bi tasee bu ndaw si jeexalee idda mu dem takk mu jël téléphone fixe kër gi woote téléphone jot xale bu jigéen bi ku fi nekk mu ne ko sama yaay lu mu sol mu ne ko mbasin bu xonq dàll yi nu mel mu ne ko dàllu nàngam lu ngeen lu muy togg lu muy def day togg lan lay togg tey ceebu jën waa ji daal di noté ñett yooyu doy na waaye ba deux heures bu mu xam ne jëkkër ji war naa wàcc mu woote ci fixe bi jëkkër ji jël ne ko ana ana sama jabar ji nekk foofu ne ko sa jabar da nga fi am jabar ne ko waaw man léegi laa fa jóge ceebu jën sax laa commandé nañ ma toggal añ gisoo yére bu xonq bi mu sol ak daalu nàngam yi man la doon teeru daal di raccroché waa ji dem ci waañ bi fekk jabar ji sol yére bu xonq mu ne nii gis daal lim ko wax mu ne ko loo togg mu ne ko ceeb bu xonq mu ne ko caga bi nga doon dem si ne ko waaw lu xew mu dóor ko korosé teg ndaw si xamul tinul mais waa jooju balaa muy yëg ne loolu téléphone la fekk li yàqu-yàqu na mu mujj di rëcc loolu dafa bëri ci dëkk bi waaw dafa bëri ci dëkk bi ay mbir yoo xam ne ay catastrophe yoo xam ne ñu ngi am nit ñi li koy waral mooy ñàkk a teey yàkkamti ëppal ak gëm njabarkat yi te njabarkat du la wax mukk lu dul ci intérêt am lay nekk doo ñëw ci njabarkat mukk mu ne la ndàngam dara dalu la feebar bi garaawul yow de nangam nangam yow de léegi nga tukki alhamdulilah déedéet bu la waxee loolu du am xaalis parce que moom ci lii la fas yéene tedd ci lii lay dund kon foog mu wax la lu ñàng lu garaaw looy bàyyee say mbokk wala nga bàyyi say am di jàmm wala nga foog mu wax la loolu génne loolu ay sarax yu kenn xamul fekk dara amu ci kon nanu bàyyi xel ci li ñu yonent bi di jàngal ndax du ay waxi kese kese kese kese yonent bi la yàlla yónni woon yàlla informe ko jox ko xabaar yi pour mu ñëw leeralal nu ko pour nu nekk ay nit mën a dund sunu diine ixwatal iman wan namima min kabair zunub rambàcc bàkkaar yu mag yi la bokk wa hiya sababun li azabil qabr rambaaj ginnaaw ba mu bokkee ci bàkkaar yu rëy yi ku ko deewaale tuuboo ko yàlla dina la mbugal biir bàmmeel yonent bi alayhi salaatu wassalaam romb na ñaari bàmmeel mu ne ñaari bàmmeel yi yàlla ngi leen di mbugal seeni boroom saxaaba yi ne ko ñaar mu dagg xobu garab yonent bi dagg ñaari xobu garab yu vert daal di ko ci samp mu ne yàlla dina leen bàyyi ba xob yi wow saxaaba yi ne ko yonent bi ñii luñ def mu ne ki njëkk ki kii su demee wanag du wisu day sawte du wisu du serlu du yóbbu ndox toilette noonu mu sawee rek noonu lay tëjawaatee tubéyam ñu ne ko keneen ki nag mu ne ko ab rambaaj la woon da doon tàqale ay diggante di toxali wax gis ngeen yonent bi ne ñoom ñaar nag yàlla dina leen bàyyi ba bant yi ma ci samp woow bu bant yi woowee rek mbugal mi déparaat kon nañu yëg ne rambaaj ci bàkkaar yu rëy yi la bokk parce que day waral mbugalum bàmmeel wa min asbaabil xirmaani duxulil janna rambaaj du dugg aljanna yàlla ku rambaaj rek yàlla dina la xañ dugg aljanna hadis ibnu abbas jàngi ngeen ko laa yadxulul janna nammaam jàngeen xadis mutafaqun alayhi marra bi qabrayni yonent bi romb na ñaari bàmmeel yu azabaani ñu leen di mbugal ahaduhuma kaana yamshi bin namima kenn ki rambaaj la woon kon ñaari xadis yaa ngoog danañ la mbugal bàmmeel danañ la xañ dugg aljanna ëllëg wa namima kama hiya min alkabair fa hiya fi lxaqiqa xuluqun mazmum waxuma la sax rambaaj bokk ci bàkkaar yu mag yi waaye dëgg dëgg dëgg jikko bu ñaaw la jikko bu bon la ci nit imagineel koo xam ne yow kër goo ne asalaamaaleykum nit ñi ne ah leen de wala mbooloo moo dugg nit ñi ne ah xam nga loolu cib jullit ah loolu ab jullit war na waru ko mel rawatina nag bu sunu diine bu ñu sunu diine teree gis nga lislaam dëgg-dëgg bu ko nit ñi comprendre woon kon danañ dund àjjana ci kaw suuf ndax lislaam lépp lu mu tere lu bon la lépp lu mu wax def leen lu baax la seet leen rek yéen ñi toog fii ku nekk na xalaat rek ci li lislaam tere mu ne waa nangam moom dëgg-dëgg vraiment baax na mais lislaam da koy tere essayé leen seet leen may naa leen cinq minutes ngeen xalaat ci li lislaam tere ngeen xool ci loo xam ne wax dëgg yàlla islaam waru ko woon tere bismillah am lépp lu lislaam wax rek ah bismillah da ngay xool lenn rek loo xamee lislaam dafa neex ci nit ñi nii wala nit ñi bëgg nañ ko
jëw jëw gis nga jëw musique xoolal am yooyu boo toppee boo ko toppee da ngay gis ne lii day yàqu société tey boo nee jëw jëw de moom waroon nañ ko bàyyi nit ñi di ko def est-ce que bëgg nga ku la jëw bëgg nga ku jëw sa papa bëgg nga ku jëw sa yaay bëgg nga ku jëw sa maam voilà waa ji ba mu ñëwee ci yonent bi ne ko yonent man dama bëgg rek nga bàyyi ma njaaloo saxaaba yi ni waaye kii rek jub dina bàyyi leen jàmbur toog leen dal leen ñëpp toog man lañ laaj laaju ñu leen kenn di ko lim laaj waaw man lañ laaj nga ni la wax yow lu bëgg rek nga bàyyi ma njaaloo mu ne bu nga ko def sa yaay bu subhanallah rek la na affaire bi rek la na jeex na moo tax gis nga lu bon baaxul lu bon loo gis nit di def buggul ko def mbokkam buggul ko def ah lépp loo gis nit di def ci lu bon bëggoo ku ko def sa mbokk yow mi koy def bëggoo ko def sa mbokk da ngay gis sax kuy def lu bon bu amee doom du bëgg doom ji liggéey loolu da nga yóbbu ci leneen da ngay gis musicien bu yóbbu doomam daara alxuraan mu def tahfiz quran nga ne ko ah mu ne waaw waaw waaw da ngay dem ci benn daara ñu ne la kii doomu diw la dem naa ci benn daara bu mag ndeysaan ñu présenté ma benn waa joo xam ne ndeysaan yal na ko yàlla yërëm toof soppi ko ñu ne ma kii doomam la ma ne ah di la sant yàlla la yuxrijul xayyi min al mayit yàlla day fekk lu dee mu génn ci lu dund yuxrijul mayit min al xayyi sama ñetti élèves yu jigéen ndeysaan dañuy muuru seen yaay di théâtre nekk théâtre kat bu mag ci télé yi benn bis kenn ci xale yi ne ko waaw yow yaay yow ni nga mel nii da nga ko mënta changer yow xoolal nangam xoolal nangam mu ne doom man xam naa ne sagar laa waaye sagar bu ëmb or laa ndax yéen ay or ngeen man maay sagar bi leen ëmb ñaanal leen ma xool leen tontu mu ne sagar laa waaye sagar bu ëmb or laa kon bàyyi leen ma rek ma mel nii voilà xale yi wax ba sonn noonu la mujj continuer mel waaye alhamdulilah xale yi ba léegi kenn ka topp na ko ci mais ñaar ñaa ngi muuru ba léegi parce que ki ko ci topp moo gën a ndaw xam nga influence looloo tax mbokk jullit yi rambaaj baaxul ci société day yàq moo tax lislaam tere ko mu nekk jikko bu ñaaw bu bon boo xamante ne ab jullit war na koo sori war na koo dindi ci boppam wala yanbaghi lil insaan an yuti'un namam waaye nit ñi tamit waruñoo topp rambaajkat yi mahma kaana xaaluhu ak situation bi lu mu mën a nekk ak lu mën a xew bul topp rambaajkat qala taala wala tuti kulla xallaafin mahinin hammazin mashaa'im binamim yàlla wax na ci quraan ne ngalawaay bu leen topp waatkat yu bari waatkat léegi nga dee benn benn waay wallahi billahi sallahu kooku saa yoo gisee ku mel noonu bu yeboo nga def attention waaye joo xam ne day waat par seconde yàlla nee na ngeen moytu ndikku ko mahin ko doyodi hamazim mashaa'im binamim dafa doyadi nekk waatkat di dox di tasaare ak rambaaj ci biir nit ñi loolu rek mooy mbiram macha dox muy mécceem doxulan bi namim tasaare rambaaj yàlla nee na ku mel noonu bu ko kenn topp waalamu yaa ibadallah ñun jaamu yàlla yi mbokk yi nañu ànd xam anna man namma ilayka namma fiika aw minka fa zarhu képp ku ñëw wax la dara ci keneen ñëw ne la nàngam ak nàngam su demee yóbbaale la képp ku ñëw wax la kenn ci lenn su keneen ñëwee mu wax ko dara ci yow waaw te loolu rambaaj la loolu jëw la même bu dee li nga wax dëgg la jëw nga yaay Aysa toog nag yonent bi benn jigéen ñëw wax soxlaam ba génn yaay Aysa ne aka sew yonent bi ne ko booy wàccu di wàccu dara lekk nga ko daal di koy xët deret tuuru suuxu yàpp génn mu ne ko boo dee woon ak lii da ngay dem safara xanaa xamoo da nga ko jëw mu ne jëw ma ko de dama ne ku sew la mu ne waaw est-ce que wax nga ko ci kanamam bu dee ku sew la nga ni ku sew la mais ñemewoo ko wax ci kanamam loolu mooy jëw bu dee dafa sew nga ni dafa pataa loolu da nga koo fenal parce que li nga wax melul noonu kon jëw sew na de est-ce que tey gars yi nee nañ jëw da doon xasaw comme yàpp bu nëb su ko nit defoon rek day yëg lu xasaw ñu la ñu laaj question ñu ne waa léegi lu tax kon xeeñatul xasawatul ñu ne dëkk bi yëpp dafa nëb ñëpp a koy def moo tax léegi mu nëb ba kenn xeeñatuñu benn borom xam-xam bi mu ci joxe misaal mu ne boo duggee ci duus egsi nga rek ubbi bunt bi dugg toogagoo luy xew foofu lu lay xeeñ lu xasaw boo fa yàggee dara dootu la xeeñati maanaam lu bon bu ci nit yàggee dootul dootul nekkati ci yow lu bon lu bon boo ci yàggee dootu la xeeñati dootul dootul nekk lu bon ci yow léegi day baax rek xoolal xoolal dëkk bi ni ñu yàggee ci lu bon da ngay gis koo xam ne li mu sol ci lu bon démb laa gis jigéen ju jéppi moroomu jigéenam ndax li mu sol bilaay wallaay ci oto lañ dugg de ñun ñëpp mais ndaw si bi mu yéegee maa ngi gis benn benn ku jigéen ne ko nii nii ba càgg naan ne ci patu ñàggal kanam ngi ndeysaan ma ne est-ce que gis nga de jigéen ñi sax ndeysaan léeg-léeg nga gis ci ku gis moroomu jigéenam sol lu bon moom xolam jeex maa ngi xool ndaw si rek mais xam naa ne mer na xolam jeex na parce que mbokkam bi li mu sol baaxul mais mënu ko ko wax parce que yaayam la ànd kon lu bon baaxul rawatina nag lii ñuy jàng te muy rambaaj baaxul jikko ju bon la ju ñaaw la moo tax yonent bi jox ko melokaanu njabarkat yi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom rambaaj su fekkente ne danga nangu ñu defal la ko wax la jox la ci ay information ci nit nga kontaan na nga yëg ne ka la indil information bi bu demee yóbbaale la yow walla dafa ñëwoon yow yaa ñëwoon informé ko walla moom moo ñëwoon informé la bu ci mën a nekk soo ñëwee boo demee mu wax la bu ñëwee bu demee wax la kon nag benn baaxu ci te ku mel noonu du nekk xarit waaw ku mel noonu du waru nekk soppe ku mel noonu dañ ko war a moytandiku moo tax ngeen jàng ci alxuraan mu ne fa yajibu hijraanuhu kooku sax dañ ko war a tongu dañ ko war a tongu su ko société bi yëpp bàyyee dina góorgóorlu ba génn ci jikkoom bu ñaaw boobu war a jellu siwaat ci jikko lislaam mu ne société bi lépp lu koy sàmm li añ nal mujtama société boo xam ne mutahaabina dañoo bëggante mutamaasikiina dañoo jàppante société boobu day dem ci kanam société boo xam ne dañoo bëggante jàppante yërëmante dimbalante société boobu day dem waaye société boo xam ne dañuy jëwante di rambaajante di tamante dëmm iñaanante société boobu di dem moo tax yàlla di tere loolu ci quran mu ne wala tanaaza'u fa tafsalu wa tazhaba rihukum bu leen xëccoo bu ngeen xëccoowee da ngeen di tàqalikoo bu ngeen tàqalikoo daal di yon jox seen doole daal di dem nee na société dafa mel ni dafa war a mel ne insaanun waahid benn nit al muminu lil mumin al muminu lil mumin kal bunyan yashuddu ba'du ba'd مثل المؤمنين في تواضهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى yonent bi nee na société islamique nit ñi ni ñu war a mel mooy dañoo war a mel ne yaram mbokk jullit yi yaram su bët feebaree bopp ak nopp ak bakkan ak gémmiñ ak loxo ak tànk fu ñuy dem dañuy dem liggéey ji fu ñuy def dañuy solidarité bët rek mooy metti waaye ñépp ay toog ana tànk nee na man dox yu ma tey de lu tax parce que bët mooy metti loxo yow nag la teree dem mu ne demuma de lu tax parce que bët mooy metti waa nopp yow nag mu ne man maa ngi nii maa ngi dégg de waaye man daw sawaruma de lu xew parce que bët mooy métti waa gémmiñ yow lu tax doo wax ci kaw non man maa ngi nii mais xam nga rek bët bët moo feebar quoi gis nga gémmiñ sax dootul nangu wax ci kaw su biir méttee aussi ñoom ñëpp ñu solidaire yi dañoo tëdd ci wetam toog loxo dootul sawar pour liggéey li mu doon liggéey tànk kazaalika gémmiñ nopp sax bët sax dootul bëgg a xool mu tax tëdd rek di nelaw rek xoolal yonent bi mu jël société islamique di ko mel di ko melal noonu sallallahu alayhi wa sallam su nit ñi déggoon loolu tey lu ngeen xalaat su nit ñi meloon noonu tey nekk benn nit waaw est-ce que kon li xew ci société bi dina xew sunu réew mi li ngeen fi dégg di ngeen ko dégg réew lislaam yi li ngeen koy dégg li ngeen ko dégg waaye tey li ëpp ci ñun mooy dañuy dégg texte yi dégg hadis yi jàng ko mais duñ ko dund loolu rek mooy problème mu di julli di tey texte yaa ngi fii aaya yaa ngi nii hadis yaa ngi nii mais ñu koy dund ñoo néew ay nit yu koy def ñoo néew saxaaba yi ñoom dañ ko jàngoon dund ko wàcce ko ci kaw suuf dund ko nekk benn ñoom dañoo nekkoon benn waaw moo tax ngeen di gis xijra ngeen di dégg ku ne woon jabaram am naa ñeenti jabar kaay ma fase nga jël benn am naa ay tool kaañ dem nga xool boo bëgg am naa kër kaañ dem nga xool xoola loolu ah yonent bi mbokkale leen ba ñu yaakaar ne kenn ku ci nekk sa mbokk daf lay doon kon mbokk jullit yi loolu moo doon sunu darsa tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiisu ibnu mas'ud moo ñuy tere al addu te mooy an namima moo tax mu ne hiya namima alqaala bayna annaas mooy mooy rambaaj boo xamante ne dañ koy wax diggante ay nit di leen taqale ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu muccal ñu ci asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu boo amee ay question